ca nekk ci comité d'organisation màggal bi ñuy ñëw rekk ci wàll boo xam ne wàll bu am solo la ci màggal bi te mooy li jëm ci wàllu activité culturelle ak scientifique yi nga xam ne moom lañ baaxoo amal ci wàllu xam-xam ak tasaare njàngale bi Sëriñ Tuubaa bu ñu fàtte ne commission bi nga xam ne mooy bokk na ci li ëpp solo ci biir comité d'organisation mooy commission culture ak communication ndax màggal day événement boo xam ne xew-xew boo xam ne léegi àddina bépp ko wax bu ñëwee mu mobiliser mboolem loo xam ne jumtukaayu tas xibaar la ci réew mi ak ci bitim réew àdduna bépp di ko topp kon day jaaru ñu di ci profité pour ja jàllale njàngale mi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne àdduna bépp soxla na soxla nañ commission culture culture ak communication nag dafa baaxoo ànd ak daayiratu Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne Sëriñ Ahmad Badawi moo ko jiite ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu boobu ren nag xam ngeen ni contexte particulier lañ nekk yaakaar naa professeur Lamine Gueye ak sëriñ Abdou Lahad bi ñuy tàmbali xamal nañu fàttali nañu contexte bi ñu nekkoon bi ñuy jub màggal lu bari doon nañ ko ci ragal waaye sëriñ bi mu joxe woon ndigal ne li nga xam ne moom lañu war a def ci màggal bi nañ ko def waaye ñu boole ci respecte li nga xam ne mooy mesure benn barrière ba loolu tax bi sëriñ Bachir Abdoul Qadir joxe ndigal wax ne colloque bi nga xam ne daan nañ ko def ñetti at yu nekk ren la waroon a am ndax 2011 2014 2017 ñu war koo def ren dañ koy amal kon dañuy ñëw rek ci bilan bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu activité culturelle yi la ci jiitu kon mooy colloque boobu nga xam ne colloque international la bu am solo thème biñ ci jëloon nekk thème boo xam ne dëppoo ak contexte bi ñu nekk ndax ku ne xam ne yoonu murit ak njàngaleem Sëriñ Tuubaa wàllu ma lu am solo la ci te gis nañ xidma boobu niñ ko jëfandikoo ci biir Covid ak lim indi ci ay njariñ ak li nga xam ne ci biir xidma lañ ko jaarale ba jariñ ci mbindeef bi loolu jàpp nañ ne àdduna bépp war nañ koo xam war nañ koo partager ak ñoom moo tax thème bi ñu jëloon ñu waxoon la xidma et les œuvres de bienfaisance mécanisme spirituel pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus ngir àdduna bi ñeneen ñi indi seen i expérience waaye bu ñëwee ñun ñu jàngal leen suñu expérience ak jàngal leen suñu thème boobu bi ñu ko lancé réew yu bari wane nañ seen bëgg cee participer ñun bi ñuy démarré benn jour lañ ko programme woon ak ñaari session ak six communication mais au am nañ di set communication fukki réew ak ñett bokk nañ ci colloque bi kon mooy wane importance bi nga xam ne amoon na àdduna bépp bàyyoon ko xel waaye nag ñu def ko ren forme visioconférence ànd ci nag ak ay partenaires yu am solo ndax ñi ngi doon jëfandikoo ñi ngi doon ànd nañ ci ak UVS muy Université virtuelle du Sénégal ñu xamoon leen ci wàllu visioconférence ak comité d'organisation xam nga am nañ suñu commission intique bu jàmbaare mel ne Bichri TV ak yeneen partenaires yoo xam ne ànd nañ ñu def conférence yi en ligne waaye yàlla ñu jaarale ko ci réseaux sociaux yi ba nga xam ne ñu baree bari suivre nañu tey rek laaj na techniciens yi ñu defal ma benn bilan statistique yi ñi nga xam ne jot nañoo suivre colloque ci réseaux sociaux yi par exemple Bichri TV yi ñoom bi ñu defee seen i statistiques liñ ma jox ci ñi ko suivre ci seeni ci seen i euh, réseau mat na quatre vingt et mille quatre cent cinquante huit bu ñu ak mooy ci application bi ak euh, YouTube bi ak Facebook bu ñu xoolee télévision bi deux cent quarante quatre mille trois cent soixante quatorze euh, suivre nañ ko bu ñu xoolee. Magal TV muy comité d'organisation bi seen chaîne bi ñu am gis nañ ci seen réseau ñoom it mille yoo xam ne suivre nañ jokkoon nañu waa IBS pour ñu jox ñu seen statistique mais temps bi xam naa mayutoon ba jotuñu ko ca ñoom seen réseau rek am nañ 39000 ci seen biir réseau kon loolu war kon suivre nañ ko largement ci àdduna bi ca loolu it écho yi ñu ci am wane na ko ndax ñu ci participé woon ñu ci baree bare jox nañu feedback xamal nañu loolu am na solo kon loolu lañ doon wax ci gàttal ndax pays yi ci bokk bari na lool mën naa ci tudd Mauritanie Maroc Tunisie Égypte Jordanie Oman France Belgique Irak Syrie Angleterre Liban Émirats arabes unis ak Somalie yooyu yëpp ci ñi nga xam ne participé nañ ci euh, colloque bu lañ bokk waaye ku ne xam na ne colloque bi rek du woon activité màggal bi am na activité yu am solo yoo xam ne Rawdu Rayaahiin baaxoo na ko amal bisu màggal bi am na taabal ronde bu am solo boo xam ne dañ koy faral di def nga xam ne yeneen këri diine yi dañ ciy bokk ñeneen ñi màggal si dañ ciy bokk ñu jël benn thème boo xam ne day yitteel réew mi ñu waxtaane ko ren ñu def ko en ligne bi ñu ko defee thème bi ñu jëloon mooy suñu mag ñi nit ñi sàmmee li nga xam ne mooy suñu patrimoine jël lu mel ni école ashari joxe ko comme exemple nga xam ne tarixa yi tarixa bu nekk moom nga adopté liggéey ci liggéey yu am solo ca mu bokk ci li nga xam ne sàmm na suñuy pas-pas sàmm na stabilité réew mi loolu thème boobu lañ ci doon waxtaane def ko en lii am nañu ci participé ne Gambie ak ñoo fu euh, ne Ourossogui ak yeneen barab ci ci ci Sénégal guddig màggal bi baaxoon nañoo def conférence bu am solo boo xam ne àdduna bépp moom dañ koy siiw rawdu rayaaxin di ko def nga xam ne mooy bi nga xam ne sëriñ saalihu radiyallahu anhu moo ci joxe woon ndigal ñu doon ci berndeel gan ñi nga xam ne ñooy këri diine yi ak borom xam-xam yi ñëw ci màggal bi ni leen di berndeele ci xéewal yeneen yi ci des ñu baaxoo def bu ren aussi fexe nañ ba def ko moom it ñu bari siiwul ko ñu defoon ko ci dunduk sëriñ Touba radiyallahu du jiitu muy muy dem ci géej gi loolu weesoo am na ay émission yu bare bare bare yoo xam ne def nañ ko masalan xidma lañ jëloon comme muy thème général ci acti ci émission yi nga xam ne moom lañ def def nañ ci enregistré nañ ci émission yoo xam ne jàlle na nañ ko bu dee ci ma euh, surtout màggal bi jàlle nañ ci lu mat 22 émission yoo xam ne cinq émission yoo xam ne def nañ ko bu ñu recensé intervention yi nga xam ne suñ personne ressource yi ñu mobilisé woon def nañ ko à travers ci média bi bi ñu ko xoolee mat na 103 programme yoo xam ne bokk bokk bokk na ci kon loolu ci gàttal ci tënk rek ak waxtu xat wi mooy wane ne kon culture bi dañoo gis ne sax dafa mel ne ren la gën a am impact ren la lañ ko gën a topp ren lañ ko gën a teewlu loolu rek di wane ne kon wet bu nekk goo xam ne ña ngi ca doon amuk jaaxle bi màggal bi ñëwee def mel ne suñu borom daf cee tawféex ñoo am ci résultat yoo xam ne weesu na la nga xam ne moom lañ ci doon séen loolu laa amoon ci tënk ci wàllu commission culture bi ñu di ci sant nag Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo yor commission culture waaye nag teg lépp luy culture ci loxol Serigne Ahmad Badawi yi nga xam ne kon kàddu bi ñuy yëkkati ci tur ci turam lañ koy yëkkatee waaye loolu yëpp loolu ñuy sant Cheikh Mouhamadou Bachir ñoo xam Cheikh Abdou Khadir ak Serigne Ousmane ñi nga xam ne ñoo yor comité d'organisation bi waaye loolu lépp nag ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi lool di sant comité bi nga xam ne moom la la Lamine jiite woon te ñu gis liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu